ok xarit ñi seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV suñu émission lu xew Thiès ñuy dalal ma ànd ak sama naataangoo di Mamadou Diop communicateur nekk kenn ci ñi nga xamante ne ni euh, doomu Thiès lañ euh, mamadu dañ lay wax euh, nga nuyoo rek ak mbokk xarit ñi seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV. Euh, asalaamaaleykum Omar maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sunu ñi nga xamante ne chaque euh, semaine ñu ñu daan euh, kar di yàqamti bu baax émission bi tey ñëwaat nañu xam naa ne moon ngeen ñu waaye ñu ne namoon nañ leen ci sunu émission lu xew Thiès fas yéene Farañ tawaat kon ni ñu ko daan defee rek mbooleem xew yi am ni mooy am ci dëkk bi ak yi a xew Omar ndax fan si namoon nañu ñu ngi bëgg bu baax Thiès info. si lu wér Modou dañuy dem ci li nga xamante ne moom mooy jëye bi nga xam ne xew na foofu ca Mbour 2 wala Mbour 3 comme nañ ko waxee jugee booru Sofraco mu nekk tiis wu doy waar ndaxte xale bu jigéen boobu jàpp nañ ni am na ñaar fukki at ak juróom ba fanweer ñu faat bakkanam ñenn ñi sax am nañu biral turam nii Ndey Fall Ndey Jëmb Fall la tuddoon nekkoon na koo xamante ne ku amoon Pastef la. ci wàllu liggéey parce que lu bëri daal wax nañ ko ci li ni mel ñu bëri introsé waat ci li nga xam ne mooy insécurité fii ci Thiès est-ce que yooyu insécurité la parce que bu nu xoolee ni euh, bañ ko defee loola. waa koñ ba génn def ay témoignages ne ñoom dégguñu benn bruit dégguñu benn coow dafa mel ni daal nit kooku da koo jël xëy na egg na ci moom tëdd na ko. def ko loo xamante ne naka sudul noonu la faat bakkanam daal di koy yëpp indi ko ba foofa comme wéet na te ab rukk la boo xamante ne terrain ba sax xam naa daan ci ñëwaat. waaw euh, Omar euh, euh, tiis lo bu metti dëkk bi yëpp yëgandoo ko mu naqari leen. Euh, insécurité la wala dañ ko defe ci àll wala mu defe ko ak moom fenn am euh, ay raison yu tax mu koy nëbb ngir bañ mu wax wala dara yooyu yëpp c'est à revoir waaye li gën a euh, fëstal te xam ko mooy euh, naqariñ torop lii dafa war a tax ñu ñu waat bu baax parce que genre viol yi léegi day commencé bari genre meurtre yi mi ngi commencé bari te Thiès euh, habitude yi ñun xamuñu ko woon waaye ndaw si man tur wi Ndeye Jëmb Fall mhm. damay ragal est-ce que laalul ci waa kër maam Cheikh Ibra parce que tur yooyu fa lay ëpp lu muy jóge mhm. Ndeye Jëmb Fall tur la wu ñu miin ci waa kër Cheikh Ibra damay damay ndax xale bi taqul ci njaboot gi wala turandoo la fa te itam eh, ay waajuram man déggaguma seen réaction gisaguma ñu télévisé leen ñu wax wala dara comme ni ko ni muy amee bu amee Dakar wala dara. Hmm. je ne sais pas média bi xaw na liggéey nag mais dafa antuwul parce que ca lañ jotee sax yenn xabaar yi maanaam xale bi amoon na ñetti doom. Hmm. bàyyi na ñetti doom ci ginnaawam. yàlla na ah, yàlla taxawu am nañ ci tamit ay information nekkoon na daal ko xam ne ko amoon Pastef la. ci liggéey. Eh, kon euh, kon kon Omar loolu rek day mën a demee soit euh, nit a ko trompé fenn ci àll ba euh, seq ak moom li mu seq moom xëy na ñu am ay intransigeance mu daal ni xaaral ma xool nu may sacrifier ci moom wala soit aussi tamit jëfkatu ñaaw ñaawteef def ko liñ koy def mën nañ ko mën nañ ko pomper parce que boo xoolee gémmiñu xale bi dafa mel ni dañ ko doon dañ ci ñu wax ay mouchoir xëy na peut-être dañ ko doon empêcher pour mu mën a yuuxu wala ñu taf bakkan wala ñu pomper ko à gaz ko xasse ba def sa gémmiñ rek doto yuxu waaw yoy ah, yep meuna ci ne waye dal li li li li li ñu mën a jàpp daal fii ba tey mooy mhm. metti na lol lol lol lol mom job lañuy wax police amna xarañ gu toll ni xam nga yu bari fi am ku ne dañ ko mhm. japp waaw waaw bo xoolee ñi ngi liggéey bañ ko fi toje tojee mhm. euh, non gaay mom ñi ngi liggéey te ñi ngi ñaan yalla ndey jëmb mi euh ñi ko def li ak wala ku ko def li yalla ko yalla nit ci wéru doy war parce que wéru wi xam nga moy mois de mars moy mois de mars 8 mars journée de la femme ñu def ko ñoom ñu xeex ko waaw sax ñu xex ko chaque jour ngay noté ci ay malfaisance yu am ci jigéen ñi. Mhm. loolu lu ñu naqari loolu la wax dëgg yàlla ñu koy. mel parce que violence yooyu nekk na lu doy waar kuréel yi nga xam ne xeex. Mhm. xam naa ni daañu jokkoo ak ñoom. incha allah gën ci indi ay leeral. parce que xale bu jigéen boobu tey yàq nañu addinaam. Mhm. waaye tamit yàq àddina ay waajuram ay waajuram nag dañ leen dëkkale fu baax ñu daal njaboot ju baax lañ am na sax ñoo xam ne sëkk nañ ak ñoom teraanga ñun daal li nga xamante ne mooy toujours wàllu kaaraange waa koñ ba nag moom la ñu tuum la ñu. la ñu tuumaal tuumaal waaw tuumaal mooy wàllu lumière. Hmm. nee na foofu tamit. waaw lëndëm na nag lëndëm na terrain ba tamit. bari na lëndëm kon maire zone ouest. ñu ko ci ñu di ko xamal ni que daal clarté bi. Hmm. dina deew ma dina fi mais dina atténuer. Hmm. yenn actes ñaaw yi nga xamante ne dañ koy faral di def. mais tamit Diop xam nga am tamit loo xam ne doy waar la parce que terrain boobu boo xoolee ni mel. ab terrain bu rëy la mën nañ ne mot na quatre cent wala cinq cent mètres. man daal dama ragal ni dama ragal ni dañ koo defee ca àll ba. ca àll ñëw sànni ko fa indi ko waaye nag terrain ba. xam nga boo amee terrain bu mel noonu ci domaine bu prisé noonu parce que boo xoolee foofu euh, ay terrain yu seer dafa ne. mais naka la koy nit di moomee ba pare. sécuriser woo ko defoo ci comme ni ko mag ñi daan waxee ñàkk. waaw xam nga xam nga yu mel noonu en général boo koy gis. day doon terrain boo xamante ne du doon moomeelu kenn nit. Mhm. soit famille koy bokk. Mhm. Euh, déggoowuñu ci nuñ ko war a départager wala nit donn ko ci ay maamam te amul doole. Mhm. jum ko war a tabaxee te du ko nangoo jaay. waaw waaw. waaw bu dee douanier la moom mën na ko mën na ko reconstruire wala mu xool nu mu koy def. mais mu xool benn mur sax clôturer ko. clôturer ko mais boobu est ce que du gën a garaaw parce que bu fekkee dañ ko clôturer te defuñu fa dara. Mhm. Euh, nit ñi ku fay def dara boo nee tàbb ca biir rek day gën a làqu donc. Mhm. waaw mu ni fàng sax muy ñuy gis moo tane. Mhm. waaye bu fekkee dañ koo miire. waaw mais ci la ñaawtee fi gën a mën a làqu. waaw nañ nañu dollu kaaraange bi daal moo gën a wóor. parce que yaakaar na lu nu yàmbalang lu nu yàmbalang. moo gën a wóor lu nu fermé te amul dara foofu la làqatu gën a ay jumtukaay mais wala ñu jox ay jumtukaay. waaw ñoo xam bi. waaw yooyu yëpp daal ay pexe la waaye xam naa ne li ko dal lu métti la te ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla nit ñi def lu ñaaw jëf yu ñaaw ji. Mm-hmm, waaw waaw amiin amiin euh, voilà Mbodj Diop dañuy jógee foofu euh, bu ñu fa jógee dañuy dem fa nga xamante toujours moom mooy xew-xew wu rëy woowu. Mm-hmm. parce que gis nañ fi li nga xamante ne moom mooy ndaw man koo wattu Sénégal mm-hmm, euh, ñoom defon nañ ci ab déclaration le 15 mars waaw bëggoon a def marche waaw ne waaw 15 mars lañ defoon mooy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kuréel gi wattu sénégal ñu mhm. diriger ko ñoom njaga jaw mhm. ñoom babacar mbay muscad ak euh, seen xarit yi nga xamante ne ñoo aliguer ñoom yëpp ñoom ñoo ajibu très bien waaw ñoom ñëpp ñu manko sénégal mhm. euh, xam nga euh, droit à la marche loolu xëy na peut être waaw loo xamante lu ñu lu ñu nangul la mais ci yan anam ngay marché nooy marché lu la tax di marche nga bind. Euh, euh, ci préfet mhm. mu accordé la wala ñu bañ la accordé loolu loolu fi lañ ko fekk. Mhm. bon lu tax préfet accordé wu ko. Mhm. ñun leeruñu. waaye nag Diop attention dañ fay taxaw xool parce que ñoom la tax ñu ne dañuy marche mooy jàpp gi nga xam ne nekk na ab du ma ne sa jàpp ndéggandiku bu ñu jàpp Khalifa Sall di meeru Ndakaaru. ñoom ne ñu tegul ci yoon. Euh, waaye tamit li nga xamante ne toujours ñoom nee nañ daal dund bi dafa seer. jafe-jafe askan wi dañoo bari nguuru makki Sall daal nguur la boo xam ne ku ma am ndey ku ma amul ndey la. waaw ña euh, daal ñoo neexle ma ña nekkul moom ca fitna leen dëkk ñoom daal neen fitna boobu ak ñàkk justice boobu nga xam ne toujours ñoom jàpp nañu daal Macky Sall ak nguuram dañ koy instrument manam dañ koy jëfëndiku di si def li nga xam ne moo tax tax ñu bëgg créer marche bobu waaw waaw waaw euh, euh, askan dañuy def marche pour la voix du peuple quand même mhm, mhm. bu fekkee nit ñëpp ànd nañ ci ak ah, ah loolu ñu wax ñu soutenir mu doon mbolo mu takku ah, dañ dan mën a xam ne loolu jafe-jafe askan bi la mais amna ño ñoo xamante ne xëy na ñun la ah, ren yi yomb na man so suñu comparé man faraluñu faraluma ci kenn parce que taxawayu émission lañ fi mhm. euh duma dugg ci yenn détail mais boo xoolee nag euh, euh, kaaw. Mhm. Euh, njëg yi li daan jar démb. Mhm. dafa mel ni la gën a ci ci nguuru yi gi fi ñëwoon. ceeb wàññeeku na. sukar wàññeeku na ak slëf yu ci bari tey ci yuñ daan dundee. aslëf ah, nga wax de. mais na rek. par rapport démb la gënoon a a cher ka tey. Mhm. gannaaw démb la gënoon cher ka diw bi nag ni mu yokkoo sur le plan mondial. yaakaar naa ni waaw pétrole bi bu yokkoo ñu ne mondial te bu wàññi koo kenn du ko wàññi askan wi ñu ngi. Euh, loo waaw d' moom nañu wax askan wi rek bu marché bi normalé ñu def ko it kaasa man de ku ma jël. Hmm. wàññi ma jël nag su ma sañoon yëf yi wàññi ko kat. waaw hmm. ah, kon hmm. marché man d' accord. nga wàññi wu ah, bu dee marché ngir wàcc yokku yokku bi askan wi moom. askan bi la jar waaw waaw mais mbooloo dafa solo. mais boo dee marché boo dee marché. te mbooloo ga ca wër dëgg dëgg dëgg dëgg amoo ko askan wi yëpp wàcc seere day mel ne yow li ngay wax safu leen waaw loolu loolu lu ba ta bàyyi xel la nañu xool parce que man gis nañu image gis nañu dégg nañu wax ji. parce que ñoom motif yi lañu wax sax. waaw ñoom lañu motif yi daal mooy dañoo jàpp nii daal motif yi ñu njëkk a wax mooy. interdit leen bi ndaxte daal yaakaar nañ ni am na ay nit maanaam ay samba boo yu ci nar laxasu. Hmm. pour euh, li nga xam ne yàq toujours. moo leen tax a jóg euh, waaw xam nga en général raafal yu mel noonu boo amee. Hmm. en général ñu bari dañ ci laxasu. ci marché boobu euh, ñu jàpp ni ñoom. daal la nga xamante ne fa lañ ŋànk. Mhm. téye ko mooy seen marche daañu ko am. préfet interdit na génn na ab arrêté. waaw ah, mais ñoom d'accord ñu ci li préfet wax ñoom maanaam euh, euh, euh, préfet da arrêté dogal gi mu dogal ci di marche bu mu am. Mhm. ñoom ne nañ faale wu ñu loolu tey faale wu ñu ëllëg. waaw dinañ marche force. dinañ marche dinañ marche naa suba le 24 daal dinañ marche. waaw waaw xaw ma nag fu ñu. place Normandie. waaw ba mairie waaw ñoom daal neen daan. waaw dinañ marche ñoom daal danañ marche daal. <laughs> waaw léegi ñu xool yàlla lu mu ciy def suba yàlla na yàlla def si jàmm. ñu ñu ñu marche ku jàmm parce que it euh, fii ñu toll jamono ji jàmm ñun waaye àjjuma moom euh, lu ci xew rek day daa nar a tàng te àjjuma moom doy na waar. ah yàlla incha euh, ñëw wax meeting bi nga xamante ne am na mouvement yi bëri nañu. Mhm. xam nga mouvement doolil Macky Sall bu Babacar Pascal John. ma nga woon ca Grand Thiès démb defe naa ni Diop yaa ngi fi woon. waaw euh, Omar démb euh, j'étais un peu surpris. Mhm. parce que mouvement yi bari na mais ñu ci bari dañuy turu mouvement bi rek ngay dégg wala leader ba leader res président mouvement bi di génn ci média yi mais mouvement bu samp meeting am ndaw ak mbooloo mi am li li Babacar Pascal am démb yombul de yombul. c'est pas facile de voir parce que mouvement là mais turbine officielle bu bu bu 280 places lañu indi tek ay chaise mais man mi nga xamantene man ma yoron micro central dama am problème pour am fuma tax ndox mbolo wax deug yalla bari na nit te euh, man dal mouvement bi ma gis la dolil makki ji di muy wax ah bu dé mouvement bi ni la démé dé mom mi ngi doli bon ca grand thiès wa ca grand thiès fu doy war parce que grand thiès responsable politique euh, la lambu fa

am nañ gën a am nañ fa ceeb bu mag. bu Malick Gakou doy na waar. man man euh, dafa am nag benn jàngat bu may def. ban ci jàngat bi may def mooy euh, euh, par exemple boo xoolee Ablaye Diouf saar kenn ñemewu faa ñëw dafa samp euh, du ko opposé ndax yoof ca yoof yoof gi yëpp d'accord nañ ni euh, amal na leen njariñ kontaan nañ ci moom ba kenn ñemewu faa ñëw di ko mais Diop parti waaw maa ngi waaw defal ndànk siège ba ma nga yoof mais est doole doole doole jama war a am dëgg-dëgg ca yoof am na ko mais siège grand parti ma nga yoof waaw d'accord mais est doole ja na Sarr yoree foofu monopole bëgg waaw moo ko yor de moo ko yor de ku tudd yoof di mais ku tudd est-ce que ku tudd grand Thiès

19 heures 20 heures ba 21 heures di bëgg jot ñëpp toog di ko déglu ñooñu engagé wu nañ. kon mooy première marche. mooy première sortem ci Grand Thiès. bu dollil Macky bu dollil Macky mais man la ma gis ñee ñii ñii ñii dëgg dëggu nañ. waaw euh, dëggu nañ dëgguwuñu euh, Diop dama bëgg rek nga wax ñu ban discours. la fa Babacar Pascal yëkkati boo xam ne. waaw tey mën nga koo jàngat discours bi mu daan faral di wax rek. ban ci parce que moom mouvement bi dafa tudd. mouvement dollil Macky Sall euh, bi mu nee mouvement dollil koy dollil nag doo fekk ña nekk ca parti ba parce que APR li ma ci gën a métti mooy intertranshumance gi fi mais amul ralliement. non eh, amuloon ralliement am ah, am na ay ralliement kay. foofa koo xamante ne ñoo xam ne mosu ñoo def politique. mais bu ñu duggee di politique ñooñu ñooñu ñooñu loolu kay. ça veut dire rentré lañ def rentré rentré maanaam mosu ñoo politique fenn. Mhm. ànd ak mbolo i nañ andak ak kon doli doli amna fofu euh, je ne suis pas là pour jeter des fleurs à Babacar Pascal. Euh, encore une fois ñu ñu ñu comprendre ma noonu. nekk ñu dañuy wax deug rek tayala tax euh, bon am ñu bari ñoo xamantani tay ji doli dolli kus nañ ci mbolo momu ñëw diko ko fekk si ñoo xamni ne mosu ñoo doon politique ak ñoo xamantani peut-être yenen parti lañ nekkoon nek rewmi mi doli ku nañ ci Babacar Pascal nga fa woon. loolu euh, mandarga mi Babacar nag moom euh, discours bi mu daan def moom la moom la defaat ci li ma dégg nee na booy jàppale nit ni da nga koy dollil doo fekk la fa ne nga cay tànk di ko ci defaat mu kooku dolli woo dara waaye da ngay xool ña bokkul ñi nga xamante ne nangu ñoo bokk wala ña geddoon nga jëli leen ñu ñoo bokk te loolu lay def. te it nag dollil Macky Sall bii muy def amul limite Babacar ku ne xam ne d'accord parce euh, que caajaay. li moom dafa mel dañ koo féetal woon caajaay de. waaw waaw parce que am na xaw na tontu loolu sax parce que xaw na xaw na wax lu mel noonu parce que il il fi am na benn cérémonie bu mu ñëwoon di assister di soutenir Thierno Sall mu ni ko Babacar mon voisin de caajaay jaay. loolu boo ci quelque sorte ci ni koy déggee euh, euh, Babacar sax xam naa jàppewu ko dara da ngay yaakaar ne liquidation lay doon mais euh, dolli amul limite. te it booy dolli nit comme ni ko président Babacar Pascal expliqué loolu da ngay xool fa mu néewlee wala fa fa fa mu sonne nga dollee ko foofa. kon daal grand Thiès da ngeen fa grand Thiès daa néew la APR daa néew la Thiès dañoo mën a gagné bi gagné gum ko di kon soxla na ko nu dolli caajaay mbuur président Macky ko téye moo ko moom moo fa gagné foofu kay soxla ko fa dolli fii mu gagné gul nag te mu mitti lool te Thiès waay euh, mooy ca kanu ngoyoon ñu jéem a faqatu nu leen dolli foofoo jar a koy def la dëkk de. déggoo li ma la expliqué ñooñu dañu faa baatar élection yi ñëw dañ leen dañ dañ fay battre ko mitti di leen fa gagné. en tout cas ku leen fa dolli ku ñu jël. Euh, moom kay li a la wax moom mooy li am. Grand Thiès Modou Kano ja zone boobu yëpp dañ fay gagné APR kon ku leen fa dolli ñu jël te Babacar daa ñëw dolli loolu man de su ma doon ministre wala ma doon responsable bu mag ñëpp xam ma fa ñu fal ma fa dama am siiw koy def ku ma dolli ma jël bu ñu gagné ndam li day mel ni man man a waaye du Babacar kay dolli gi Thiès gi lañ ko gën a soxlaa soxlawuñ ko Mbour soxlawuñ ko caajaay caajaay ñoom euh, ministre Omar Youm macha allah la ko war ba nga ko fay def ba ba ba ba ba téy na séefam nag dolli gi nag Thiès la war a est ce que Thiès li leen war ñu ngi koy def. waaye Babacar am na base foofu de. am na base ministre yi daal leen war buñ ko defee à 100 pour cent parce que man mënu maa concevoir sa téléphone tëj sa téléphone. ku la woo doo jël ku doo tontu. <coughs> man dem naa fi di seeti ay ministre Dakar waxuma ministre mais seen directeur de cabinet sax doo leen gis boo ñëwee ñu naan la je suis en réunion koo ci woo téléphone mu naan je suis en réunion. ban réunion xanaa réunion du jeex ci cadre ci cadre ci cadre yenn saa yi nga war am courrier bëgg koo yóbbu. je j'ai pas besoin ñu dañu wara téléphone yi ku jël. très bien Job. lañuy wax euh, doomu ci sep tay mën nañ japp nañ ni mën nañ japp ni euh, mission institutionnelle. ku ci vice président du conseil départemental. Euh, di ko di ko nuyu ma nga ma nga ca France ma nga ca Toulouse. Hmm. sa centre yi nga xamante ne euh, mbirum euh, li nga xam ne mooy aviation. fa lañ koy jàngale. Ah, lu hmm? baax la ak tamit li nga xam ne wàllu paj mi la. Hmm. xam nga laa sante moom daf ci investir lu bari. dëgg la gis nañ ko parce que nee na daal tukkeem boobu dafa bëgg nas ay lëkkaloo yoo xam ne daa ci ànd parce que tey bu ñu xoolee aéroport international Blaise Diagne bi war am fii ci Thiès. loolu loolu am pour métier yooyu maanaam filière yooyu ñu mun koy jàngale fii mu am ay kon ñoom conseil départemental Yankoba Diattara ci ah waaw tukki bu am solo la tukki buy jëriñ askan wi ku ko def dañ la ciy félicité. Mhm. Euh, loolu lu baax la macha allah ñu ngi koy ñu koy jàpp waaye waaye le deux dëkk bi dina bëri affairement de. waaw xam naa ñëwaguñ foofu la deux mais fi ñuy ñëw mooy Cambodge xam nga Cambodge moom.

seen plan développement nga koy mhm. jéem a insérer civil mhm. donc doo ko ñu naw ñu ngi ko ci félicité ko encouragé su jàmm mhm. euh, la ci li nga xamante ñoom ñu koy xeex fii ci Thiès parce que ndeysaan nee na nañu ko remercier di wax performance mu def ah, parce que ne la yokkute am na yokkute am na eh, amul dañuy ñëw fi nga xamante ne moom mooy Maodo Malick Mbaye ndeysaan mais mais ah. Maodo maa koy seen ci image nga xamante ne moo jógee ca euh, mu ngi diisoog président naa limi di sok président de ko ci war na ma ci bolé xam mo sama xarit la. dama ci bolé nak nag. ñoo dañoo bëgg a kii dañoo mën ah, a ah, non la ah, ñoom de ah du xéssu lé du xanju lé du xanju président la ko xol mu xol ko ñu andu andando dox xam mo waxé sax ñu naan xaritu do mais nak lé lee non non non non lé ministre yaa ngi ca ginnaaw ñu and di dox temp ndànk di wax waxay mu neex wax dëgg yàlla muy doomu yoré ana mo nak nag franchement président nak doon xaritam parce que président ñëw na fi jaay su ko yaay ñu and agence bu ñu xeeb mais ak solo agence non way ban am solo ay modo maling bay mais non war nañ ko jox lu ëpp loolu nga xool war nañ ko jox lu ëpp loolu man sama sañon mawda dañuy jël lu upp lolu jox ko parce que xolam dafa reuy te yene bi mu am ci jeunesse bi am ko ci dekk bi buñ ko joxoon lu gëna reuy anamo dina ci def lo xamantene tay ji president Macky Sall bu yeboon xalam dal man lolu mom leer na ma nañ nañ ko dolil garaat nañ ko dolil Diop kan kenena tukki wat waaw mawda Malick bay tukki na euh Abdou mbaw Abdou mbaw Jatara mom xamna ne mbaw Jatara euh El malik est-ce que tukki wul L. waaw ah, dafa mel ni tukki na da parce que. moom leeraguñu gisaguñu ko fenn. waaw mënuma ko waa Diop euh, le 2 avril bis la bu rëy parce que daan ci dem ay euh, cant. ñaanal way juru ki xam ne mooy euh, Serigne Omar Dem. Mhm. waaw kooku. Ah, loolu loolu la ci matinée bi la. waaye xam naa ne am na maanaam carambolage li ñuy wax carambolage. Mhm. boo ko xoolee rek daanaka accident la boo xam ne. Mhm. ay oto ñoo. ñoo àndandoo rek daal di tëjante mu ne tëyi bal ba tàkk. Diop foo ci jëm. Euh, man de def naa annonce su Mame Mbaye Guèye c'était le 18. Mhm. yàlla dogal li mu dogal ci sunu kilifa gu baax googu ñu koy ziar. ñu dem dinañ ñëw. Euh, bu baax. yàlla mhm. mu wàññiku mhm. mu changé datam def ko au lieu du 18 mu def ko le 2. annoncé nag ñëpp nag mu woo leen wax leen ni mu demee envoyé message texte ko man loolu mooy gis naa ko ci Mame Mbaye Guèye ba fii ñu toll le 2 la jàpp pour def rentrée entre temps Nabou jegen mom day joge démocratie libérale day dem dugg ci APR le président Macky Sall déggu ñukoy woy Mambé Gueye la fille de Macky légui Nabou jegen entre temps la fille de Macky lañ koy wax la fille de Macky waaw waaw doomu Macky Sall légui euh Nabou jegen euh collaboration bu collaboration ak Cheikh Kanté ak néna jigen ñi muy andal collaboration amna fa ah wa parce que recevoir nako te dégg naa jox na ko xaalis bu takku takku takku. kon xaalis la ngay lijjanti. xaalis bu takku kay la ma ko la la kan moo ko jox xaalis. Cheikh Kanté directeur port autonome de Dakar. Mame Mbaye Guèye moo jox la Nabou Ndiéguène déedéet Cheikh Kanté moo jox na bu Ndiéguène xaalis mu waroon a ñëw mu war a ñëw fii la deux. ci li ñu tënk la ko jox. ah man dégg naa ba quinze millions ah. dégg naa fukki million ak juróom waa dégg naa loolu. la jox na bu njëg ci turu lan la jot na comme jotu ko ci turu ñu préparé ñëw bi mu fi war a ñëw la 15 ba muy dem délégation ba ñoom Fama Aydara la àndal Cheikh Far Ramata communicateur. Fama Aydara même waaw ñoom ñëpp dem nañ Cheikh Far Ramata. waaw ñoom ñëpp mbokk ma waaw kon daal ñoom dañuy teeru Cheikh Kanté. dañuy ngi teeru Cheikh Kanté. le 2 avril ndax dina am changement doom changement wóoraguma mais buñ ko defee it man man rafetlu ma ko parce que bu dee APR ñun ñëpp. Ah, ñoo ko ah mais est-ce que du ci fajar bi est-ce que du ay 8 heures Cheikh Kanté bi ñëw départ ndékki kërëm Cheikh Kanté day day ndékki ba sour soko départ fu mu dem ponkalam yoy nga xamantene ba la ñoy yew une heure jot ta man Cheikh Kanté man man bëgg na ko loolu massification man leen dong mo mëna xal ci Cheikh Kanté ponkal yi nga xamantene dañuy dañuy buux ak di nu mass man buñu arrêté won loolu manam sécurité bi waaw dañuy buux di nu mass buñ ko buñ ko arrêté won rek man di moo tax rek mu yomb euh, mu yomb ku bax la nak Baye Fall Macky Sall la mm-hmm. mi ngi jël kentem tëm diko def ci parti bi di di jappalé it Ablaye Dieye suñu xarit wax deug yalla muy wa di mu maas gi jot na dindit ku bax ko ah, xamantene ne waaw def ko nit ku baax ndax Ablaye dafa yaru mhm. Ablaye di nit ku yaru la mhm. nit ku baax la koo xamante ne wax dëgg yàlla bi mu duggee ci politique bi euh, euh, zone zone est bi mu dëkk wax dëgg yàlla am siiw lañ ko def di ñaan yàlla guddal fanam mhm. waaye Cheikh daal man dal euh, garde yi daal sécurité bi daal waaw dinu tampon ak dinu masque gi tampon geeg masque gi man man moo tax man damay ragal a dem très bien kon le deux dina saf saf le deux dina saf léegi nag man nag man man li may déggal li nabu hmm. mooy mu changer date ñu àndandoo ñom ñep jappalé mam Mbaye gay bu li ñu woté ak collaboration deug la bu ñu paré nak ñun ñep ñu andata na wuy ndamu ñëgen ñu def ko bénn manifestation loolu la faire. waaye lay jub loolay faire play politique ma leeral tuuti. waaw diggante ak Mamba xam nga bu ñu wax euh benno bok yaakaar. ba ko mhm. nabu di woté coordination ba. Mhm. ciolo fa la déparé won dé ah ñom ñaar musu ñu juboo kon. non du question musu ñu juboo. non nabu ñi mu lul bari na de ñi mu lul bari na bu dee nga wax nonu mo am. Ah, wa deug man man kay dem dem da bu dee intransigeant am sen seen diggante ma Mame Mbaye nabu nabu mak ak Mame kon ra kon rataxul. mak astu gay Guèye ra taxul digganteem mak Aji ra taxul magget job mi daan and ak mom xulo nak mom mam Mame Paye nak na ak nabu jigéen nabu ñi mu jubolul bari na. ñi mu jubolul bari na de tay ñu bari ñi abu njëggeen ñi mu jubolul bari na PCA petit train bu la juumoo waaw petit train bu la grand train bu la Macky ngoy waaj a créé. Euh, ak terre waaye mooy lu teer lan petit train bu la loolu yooyu yëpp ay ay intransigeance la yoo xam ni kon kon Benno Bokk Yaakaar fa am département pour booloogu ci war à 100 pour cent bu fekkee jiboodiku yooyu day am day wàññi dooleem. namu nag kenn mënu ko sepp ci APR wax dëgg yàlla parce que elle fut l'une des premières dames à soutenir le président Macky Sall loolu lu ñu lu ñu leer la. très bien foofu la ñuy jaar euh, ci kattanu suñu borom jaale euh, umma islamique bi yëpp. Mm-hmm. ginnaaw génnub àddina ki nga xamante ne moo doon suñu kilifa. di sunu xalifa général di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu taala anhu di ñaan yàlla yàlla yokk leeram mhm. di ko jaal Sénégal di ko jaal diaspora di ko jaal waa kër Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu jaar ko kër Cheikh Omar Al Fouti nga xam ne fa tabarakallah ñoo yore li nga xam ne mooy amiral muminin euh, Diop tey loolu nga xam ne aw tiis la bu dal ci Sénégal. waaw euh, Omar at ñu dem benn perte dootu toll ne perte boobu. muy koo xamante ni tabarkàlla macha allah philosophe la woon ku mën a jàngale am pédagogie éloquent ci wax fees dell xam-xam tabe lool nag di koo xamante ni tabarkàlla macha allah il faut na njaboot gi yëpp bariwul woon i wax jëfama ëpp euh, muy perte boo xamante ni jaale waa Moustarchidine wala Moustarchidaat euh, di ba jaale sëñ Moustapha bu baax keroog dalal nañu tabarkàlla macha allah waxtaan ak ñëpp dellu siwaat njaboot gi waaye Omar li ci gën a yéeme Euh, mois de mars. Mm-hmm. ci la sëñ Ababacar si demoon. muy 25 mars cinq mars. sëñ bi juróom-ñetti fanam. le 25 mars lay tombé loolu muy lu yéeme loo xam ni ñu bari xëy na def ñu constat bi tabaarkàlla macha allah hmm. yàlla na yàlla dool leeram. Euh, wax dëgg yàlla. Hmm. dina wéetal Sénégal nag wax dëgg yàlla wéetal na réew mi hmm. tabaarkàlla macha allah. waaye daañu ko wéetalikoo ci ay waxtaan yu mu doon waxtaan mën na ñeen fukki ah, at lam ci waxtaan. ba tey mooy euh, dox. la mu doon wax ak la mu doon def dafa am bis. nit ñëw ne ma Omar ah seen xalif bi xanaa du wax di Serigne Cheikh ma ne ko sëñ Cheikh la mu waroon wax yëpp wax nit day toog rek di xaar. dëgg la li nga xamante ne mooy adduna mhm. parce que kenn du wax jamono jamono mooy suñu borom waaye Diop ci ginnaaw loolu euh, am na lu fi xew muy euh, Mouhamed mustafa bëgg Bamba Gueye. ndeysaan génn nekk na loo xamante ne tamit euh, aw tiis la. Mhm. mu dal ci waa Thiès. Mhm. mu dal ci yoonu Murit di ci sargal gis nga Omar. ñu ngi ciy sargalaale responsable politique yi fa dem yëpp jaale. gis nga APR keroog. Mm-hmm. bu do wona Augustin tin lambay dina ñaaw de. gis nga dafa am man de manifestation yu bari yu may dem. ay jaal war fa am ay responsable politique yu yu ñoo fi nekkal Macky Sall war ci to mais dañ koy négliger. ci biir ville bi ci biir ville bi. dans la commune. wa bari na da ngay sentir xulo wonte sax day dem. ba fekk ne ki nga bo responsable bu bokk su sa kan sax bu dee doo ko doo sa war a jaale ko yooyu rafetul nañu bàyyi yooyu waaye teeroor tabarkàlla macha allah Augustin Tine représenté na APR gépp mm. Maodo Malick Mbaye tamit ñu ngi koy remercier parce que yónnee na fa nag. Mm-hmm. Euh, jox ko jabol jaale ko yonne na fa ñew na fa tew na fa waaw li ñom mamadou ñing bi te kom ñom mi waaw ma ñew mamadou ñing bi te kom ma sha Allah ñew na non seulement mais landem bi yebalaat na fa délégation rek ak Moustapha jité ko Moustapha ñing waaw lolu tamit lu am solo la tabarkalla ñing mom waxuma docteur Amadou Ndiaye tamit dem na fa ak délégation délégation parce que parce que euh, mamadou ñing bi te kom mom won ak politique sax mom bëgg gay le kon lolu moko war ñu ko ci remercier bu baax di remercier tamit délégation bi nga xamanteni ñoo àndoon ñoom ñëpp gunge le ministre Augustin Tine ak directeur de cabinet am a Diouf. Mhm. àndandoo ak ñoom Martial. moom kay cabinet politique beeg ñëpp ñëw nañu wax dëgg yàlla. Euh, euh, gis nga fa tamit a Fort nga xam ne fédération des organisations. ñoom Ousseynou Diouf ña nga fa woon tabarkalla Diamath Ndiaye Diène. Mhm. ñoom ñëpp ñi ngi fa woon tabarkalla. waa conseil waaw seen naa fa sa Pape Moussa Diop. macha allah loolu solo la Euh, ñu gis ni daal. njabootam gépp toog Serigne euh, Serigne Serigne si toog Serigne Mourtala Mbacke Serigne Cheikh ñoom ñëpp ñu fa woon tabarkàlla macha allah bu baax. di ñaan ni ma bëggee woon Serigne Touba. Mhm. loolu lu am solo la yàlla na ko yàlla na ko Serigne Touba. gis nga de bu kenn wàññi ko rek. ñëpp daje kenn dootu xam réew mi ak APR PDS. waaye bu ñu fa jógee rek bu ñu jógee ci politique rek sàngante xeer yi tamante dëmb loolu dëgg. Mhm. waaw loolu moom mooy problème bi. Mhm. waaye waaye gis nga opposition. ak APR ñoo waroon di xuloo waaye APR ci seen biir ñooy xuloo man loolu ma ma metti man mu fekkoon opposition APR opposition ñu bokkal ak ñoom ñooy xuloo xeex mais APR ci seen biir ñooy xuloo di wekkante lu ñaaw man loolu man man loolu mën laa mënta comprendre ba tey ñun communicateurs yi sax yenn saa yi dañuy am problème voilà Diop émission bi eh. foofu lay ndar keppee du fi ndar keppee nag mm, dawaa mm, tamit ñuy waaj événement yu am solo nag dawaa macha allah ah suñu forum de l'émergence bi nga xamante ne moom la ñu bëgg def nag danga koo fàtte ñi ci invité ñëpp di ci woo ñëpp le 7 avril lay doon ci auditorium bi la jàpp gum mhm. di ñaan yàlla recteur mu yombal ñu ko c'est pas politique nag mhm. euh, di xamal ni coloration politique de beaucoup ko responsables ils sont bien avertis que nous, sommes sans effigie politique Nous banderole nous euh, t-shirt nous mu tam-tam ça dañ ko faire ah, tam-tam eh, non non non non amul auditorium pour enseignement la. digal nag nag mercredi la na ñëpp ñëw ngénte Babacar Ndaw bi maa maako maa ko maa ko tasaare ak Sénégal gépp noonu la mais ngénteel journaliste la képp ku ci ñëwul dootuñu la interviewé mbokk yaak xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV euh, di leen jox euh, dig daje ba beneen numéro incha allah.